gars yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di am mbégte teewaat bii ndax fàttaliku leen nii kii lañu ñu lancé woon suñu campagne locale defe naa ñun ñëpp gis nañu dig nañu di ñëwaat tey di fi lancé suñu campagne élection législative di wax nag nii. tête de liste nationalu Yewwi Askan Wi mooy waxtaan ak yéen ndax tappale yi Macky Sall mu tiit ak njublang bi mu dajale moom ak conseil constitutionnel ak direction générale des élections ak lu looloo may tudd ba fexe ba écarté suñu liste ci jamono jooyu mu def tappale bu ko raw nag ak conseil constitutionnel ak direction des générale des ak li may bañ pour valider liste bi nga xam ne am na problème parité loolu mu ngi yem ci i tappale ñoom mais ñun li ñu jàpp mooy dans les faits suñu liste national elle reste te yàlla def na ni man mii di waxtaan ak yéen maay tête de liste nationale loolu nag déclaration dañ koy firndeel li ñu koy firndeelee mooy sénégalais yëpp ñu ngi laaj ana Yewwi Askan Wi gars yi ne nañ campagne bi dafa safati moo ne ñoom ñu ngi wër dëkk bi de bopp ñoom gis nañ suukar safuñu xorom. wax lu Sénégal yi dégg. te fu ñu dajale juróomi nit ay enveloppe nit ñi ñun nag suñu digganteeg askan wi cofeel la ak bëggante loo xam ne laluwul ci intérêt waaye kóolute gu dox suñu digganteeg askan wi la moo tax ni ko honorable te cee rek bu ñu commencé yëngatu rek nit xam ni campagne ubbi na bu soobee yàlla liñ koy firndelee mooy ñu ngi dalal xel ñëpp campagne bi suñu campagne la du campagne yu candidat yi nekk ci liste yi de liñ ci fas yéene def mooy raw fuuf ñun suñu nekkoon ci liste yi pour nañ ko def à travers tout le Sénégal incha allah dañ ko def ci Fouta def ko Waalo def ko Ñambur def ko Bawol def ko Sine Saloum Bundu def ko Casamance Dakar nag xam naa ni. le grand rassemblement li ñuy wax assemblée populaire boo xam ne lu kenn mësu ko bu soobee yàlla dinañ ko fi def mbokk yi dama bëgg ñun ñëpp ñu jàpp dara élection yii waruñu ko perte mënuñu ko perte dañ koy gagné soobee yàlla il faut ñu ko parce que du question ñun du question ñi nekk ci liste yi ay député assemblée loolu mooy objectif bi gis ngeen li xew barki démb benn réewu Asie fële ñu koy woowee Sri mën nañ ko musal suñu bopp musal ko Sénégal Sénégal yëpp dëppoo nañ ni Macky Sall bu fi am forcé troisième mandat du gouverner Sénégal ak ku ko mën a jàppale nag lu mu buuga jënd yëpp ci ay waxkat moo xam ci presse moo xam ci ay kilifa xam moo xam mais suñu forcé troisième mandat complot ko conseil loolu amuñu ci luñ ci seet amuñu ci sago parce que dëgg bu jotee rek dañ may wax réew mi ngeen ku ne dañ fi am sa wàll nañu bàyyi tappale bi bu xaalis génnee ku nekk di wax bu xaalis génnee ko son déclaration bu ne ku yaakaar ni mën nga jënd nit ñëpp gouverner te boobu amuloo majorité ci sa réew da ngay nax sa bopp ñi fi defoon troisième mandat yëpp ci coup d'état la mujj ñi fi defoon troisième mandat yëpp al Condé anamu kee Mali anamu Idriss Déby anamu lan la jëriñ ku ñu jox réew ñaari gox at gox gox gox mu ci def yaa waroon moo tax élection bi ñu dalal seen xel danañ leen ci gën a taxaw ko suñu nekkoon ñun sax ci liste te dinañ ko def ci Sénégal te dinañ ko duma duma bu nañ ñu koy dànkaafu nag moom Macky Sall ak ak koy xamee nag gëm loo ko mun na nekkee lu ñëpp foog nit intimidé day nax bopp dóoraat tëjaate bi bëri na saaga ji bëri na sosalaate ji bëri na lépp ñëpp a koy gis Sénégal barki démb géej gi ngeen kaawu xale bi ñuy wax Pape Mamadou Seck ma koy wax Macky Sall wax ni foo dugal Pape Mamadou Seck parce que comme ñoom ay assassin lañu rey nit ñi dara ci ñoom bu dee ko rey ba pare di ñu koy dañ koy ñoom daal dañ wax ñoo jàpp doomu jàmbur sosal ko créer ay dossier seen procureur bii nga xam ne li ma wax démb rek laay waxaat li tax ñu teg ko fi xam nañ ko liy diggante ba Macky Sall depuis Kaolack ba Fatick ba fii xam nañ ko na génn leeral Sénégal yi fan la dugal doomu jàmbur bu ñu yaakaaree ni mën nañu intimider nit ñi dañuy nax seen bopp créer seen dossier terrorisme seen dossier rébellion seen dossier lii seen dossier là ñoo koy xaar ci taatu daala Macky Sall ak ñi mu àndal ñu koy dem xaar foofu élection yii bu foogee ne dina ko sàcc bu romb doon day nax boppam barki démb dégg ngeen ñu organiser seen i trip seen i journaliste yu mën a fel mën a fel man du fi nekk dinaa laam-laame maa saa waay ñëwee naan ay daje naag mbaalo mbaalo nee na nee na suñ gañee élection yi dina ko nangu loolu mosuma koo xam mbaalo amul fel bu dee loolu lañ koy def liñ ci jublu mooy préparer sàcc élection ba pare dama waxoon ma leeral ko fii bu sàccee élection yi du res ci bureau du ko ràññoo kon man sénégalais yi laay waxal foofu lay daaneel juróomi at ci gannaaw ci même période man de dama jiite woon liste Khalifa Ababacar Sall mi dafa jiite woon liste donte na ko tëj ko ba mënul campagne. keneen ak keneen jiite liste ñu ne leen bu leen jox Macky Sall majorité à l' assemblée nationale du ci def lu baax dégluwuñ ñu jox nañ ko majorité waaye Sénégal àdduna yëpp dëppoo na juróomi at yii weesu Sénégal amuloon assemblée nationale li yées yi lu ñu am seen assemblée nationale mooy juróomi at yi. ñoom bu ñu doon gor dañu war a def seen bilan de législature war faire proposition de lan la ñu def ci seet majorité ci juróomi at yooyu la ñu waroon wax ak Sénégalais yi kon juróom at yooyu weesu na bilan bi baaxut ngir yàlla Sénégalais yi dañu bàyyi tappale bi liy defar réew mi ñun lay doon koo dégg réew 10 def ci lu baax nga jox ko assemblée national 10 ans def ci lu baax bu dellu see ne la jox ma assemblée nationale waxuma la nga nga may ko sax majorité relative waaye 10 pour cent de score sax Macky Sall waroon moo ko jox enjeu yi nag ñëpp xam nañ ko enjeu troisième mandat mi ngi ci te ku ko wax fitna am ci réew mi enjeu musal Sénégal ci instabilité mi ngi ci enjeu delloo gor yi Sénégal yépp seen légitimité ba ñu mun a présenté wu ci élection di ko war a présenté wu mi ngi ci enjeu musal suñu réew ci ay loi yu bon ñuy voté wala loi yu baax yi ñu bañ a voté tudd na ci léegi benn mooy yàq réew bi ñu bëgg a yàq réew bi ca papier bu am ci lu ñuy signé ak convention internationale dugal leen ci waxu genre te fu ñu la tuddee genre mooy na nga ñu def ba góor jigéen sax ci réew mi barki démb dégg ngeen lu ñuy wax OGM nga xam ne musiba la ci lu ñuy lekk ay gàncax yu ñuy modifié génétiquement voté nañu loi boobu dànk ci assemblée nationale léegi ñu commencé sol suñu doom yi loo xam ne feebar bu bon bu nekk dina judd ci ñoom enjeu yi nekk ci élection bi kenn xamul lu mu ñetti fonction yi nga xam ne mooy fonction député bi ci gën a am solo rek mooy contrôler l'action du gouvernement waaye bor Sénégal fan la toll Macky Sall leb naa leba leba leb te lépp li ko andi mooy gaaw ñu tabax quelques ponts defar train defar lii pour ne jox leen ma ñetteelu mandat bor boobu d'ici dix génération dañ koy fay ci anam yoo xam ne jaarul yoon suñu pétrole ak suñu gaz jaay nañ ko te xam ngeen ni tey la ëpp solo ndax gis ngeen li xew diggante Russie ak Ukraine Europe amatul gaz ñëpp ñi ngi teg bët suñu base Sénégal bi bu dee doomu senegal ñàkk nañu pour la personnalité ba seetaan Macky Sall ci ndóol la ñuy continuer def tubaab bi jël suñu gaz ak suñu pétrole yëpp dem noosee ko càcc yi nekk ci réew marché public yi détournement de deniers publics ñoom léegi seen i néeg lañ seen kër la ñoom ay coffre-fort di ci denc ay milliards ci jamono boobu ndaw ñi amuñu liggéey hôpitaux yu baaxul écoles yi baaxul leneen ak leneen loolu mooy enjeu élection bi est-ce que dinañu nangu nag gannaaw bu ñu sàccee alalu réew mi yëpp ñëw di ko jox nit ñi ñuy gaaw di leen voté laat jox leen cinq ans xam ne duñ fi def dara loolu mooy enjeu élection bi kon lii dinañu boole ñaar fa lay daanale mooy wax na ko léegi à partir de vendredi terrain bi dina saf saf nag ndax ñun suñu digganteeg sénégalais yi relation d'amour la relation d'estime la cofeel la fu ñu dem gaay génn soxlawu ñu joxe xaalis te dinañ ci Sénégal yëpp waaye ñun dañoo ñëw ak ay proposition ngoon bu nekk libér yi dinañ ko def man de jox naa rendez chaque 22 heures sama page Facebook dinañ jukki lenn ci suñu programme wax ko Sénégalais yi ne leen lii la ñu fas def ci assemblée nationale bi la ca des nag ngi seen loxo jarul meeting yu bëri jarul xaalis bu dul jeex porte en porte fekk leen nit ñi seen i kër fekk leen ci gaaru teer yi fekk leen ci marché yi nit ñi soxlaatu soo wootee meeting yu mag militants yi ñoo fi ñëw ak sympathisants yi waaye keroog gis bi ñu wooye meeting.

Merci DJ, merci Nous avons entendu la déclinaison. Il est largement revenu sur la stratégie et surtout les enjeux des élections.